wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin moo ngi siyaare waa dëkk bi yëpp di màggal ñëpp rek ñu jiital ci siyaare bi sunu waay jur bu tedd bi di ba Abdou Karim ne moom la yàlla dogal mu nekk ci sunu kanam ñu nekk ci ginnaaw li ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ndax moom képp moo fi def ci ku ñuy xoolee njabootu maam Maram Balla ak maam Baba Coumba naa ne kàddu yi moom du du du du du gudd ndax kàddu yi ñu fi dégg yëpp doy nañu doyloo nañu ko ko dalee ci Kéba ba ci baylaat mi mujjee wax nga xam ne waxtaanee ci àll boo xam ne foo ko natt rek wees na ko wane na dëgg rek mooy dëgg ñaanal nak way jur yi nga xamne jitu nañ suñu borom yok seen leer tass ci seen barke ak kep kuñ fa nek euh ñun dañu jox cadre rek duñu guddal waaye dañu jox ñu waxtaan ci cadre daaira bi yalla da dogal nak ñun suñu yitte yep ci daaira bi la buñ namoon wax fi mu ciosano ba ni ñi daaira bi man na gudd waye ci teunk rek ngi dalé ci gi Keba Touré Sëñ keba njëkk wax moy liggey bi kat dekk yi ñu wër ñu ci ciy teew liggey ci anam bo xam ne seen doole ak seen alal ak seen ñaq ci lañ koy def te do ci gis wa dekk ba ñu dem ba lolu ñu gis ci ne ñu ci la ñu woo te ba nga xamanteni ni yi ñi tollo ak ñun fekk si ñu ci ñu nekk ci liggey bo ne bo boo ñaan rek lañ ci soxla ñaan rekk lañ ci soxla waaw ndax jëmm ji nii teew fii di Aliou nekk ci Ndiamé TV euh, waa daayiratu ak waa Kaana ñoo ko andi mu defal ñu ci liggéey bi jàppandal goo xam ne sëñ Abdou Khadir mi xam na ci dara ndax moom ci boppam de daanaka bu ñuy xool amu ci dara waaye daf ko def ngir yaatal loolu nag moo nekk liggéeyam ci toolu yàlla moom nag jekk ñoom seen liggéey mooy nan la ñuy def ba yaatal islam ci adduna bi waaw ndax euh, même lim ñu laaj man ber na ma ne su ma ne woon ko ñu leen ko jox sax te woo ko fi dina teew te ñu woo ko dina teew si kon loolu liggéey la su ko defee nag euh, daayira bi ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey sàkku ci yéen ñaan di leen wax ne nekk nañ ci projet yoo xam ne soxla nañ ku leen jàppale ci wàllu ñaan ci wàllu congé ak ci wàllu ndimbal te it nag euh, waxoon naa ko Moustapha Ndiaye bu yàggut dañ ci waxtaan ak Sëñ Abdou mooy daayira bi li ko samp mooy liggéey bi nekk ci dëkk bi ñu koy samp ci biir dëkk bi ay euh, ay ay ñoo xam ne taalibe lañ ci walla jarbaat lañ ci dëkk ci dëkk yu ñëwul ñoo daan ñëw indi seen alal liggéey liggéey bi ñu faslante suñu loxo ñu takkatoo pour ànd ak ñoom ci liggéey boobu suñu borom defal nañu ci tawféex ñu amaat ci beneen stratégie boo xam ne bëgg nañ képp koo xamante ni yaa ngi ñuy dégg nga fas yéene bokk ci ndax bokk ci daayira bi dama ne ñun magi dëkk bi yépp mën nañ cee bokk góor ñi ak jigéen ñi mën nañ ci bokk ndax kenn ku ci nekk bu bu la ngay def ci ci ci bés bi bu wàññi ci 5000 bi ngay jël def ko ci daayira bi te daayira bi seen seen seen liggéey lépp mooy nan la ñuy def ba bés bi am matériel yoo xam ne lépp rek ngeen dëkk bi du nekk baas du nekk sées du nekk ay mbana du nekk ay bool du nekk ak leneen ak leneen loolu moo nekk seen bëgg-bëgg lépp loo xamante ne dinañ ko soxla ci bés daayira bi taxaw na pour andi matériel boobu teg ko su ko defee nag même ku bokkut ci daayira bi sax gëm nañ ne moom war naa mën a bindu seen boobu chaque année wala bu dee jigéen ñi te loolu ginnaaw bi ñu ci woowee tànk yi bañ fekk suñu ci mu ngi leen di yëgal ne amaat nañ beneen liggéey boo xam ne ubbiw nañ ko mu nekkaat beneen mbooloo boo xam ne mbooloom soxna yi képp la mbooloo moom lañ leen wax mooy koo xam ne kër baabu ko ma nga juddoo wala képp koo xam ne sa papa fu la dëkk wala képp koo xam ne sa yaay fu la dëkk ak foo mën a nekk wala nga jàngee ci dëkk ñu ngi lay woo ci liggéey boobu nga xam ne suma ma juuma soxna Safiyatu ak soxna Kura bokk nañ ci ñu ci njëkk a tàbbal woo leen ci liggéey bi pour ñu dajale mag ñi ak gune ñi ñëpp li tax ñu def ko nag bu leen woowee ba ñëw ñoom nekk nañ génération boo xam ne nañ leen wax li ñu bëgg mën nañ ci wax seen loxo su ko defee ñu mën ko yaatal ci soxna yëpp su ko defee soxna yi nekk ci dëkk xool li nga am ci kees dem ànd ci liggéey boobu donc loolu mën na yaatu ba dajee waa saa te léegi ñun loolu moo nekk suñu projet li nekk suñu liggéey dëgg-dëgg mooy nan la ñuy def ba dajale ndaw ñi ñu ñu ànd ci liggéey boo xam ne euh, diggante bi dina ratax liggéey bi dina yomb xam nañ ne am na ci jëmm yoo xam ne bu leen fi sañee saa fekkoon dina wàññi seen loxo liggéey lu ci des bi ñu nag kuñ ci xam dinañ wàññi sa loxo liggéey lu leen ci des bi ma tànn ko ne ko ku mel ni yow ci sama génération ak ku ci mel ni Fallou Faye bér na ma ne bu leen fi sañee saa fekkoon wàññi seen loxo liggéey lu ci des bi kon nag ñun defee nag la ma lay tegal ca kàddu ga mooy mu ne ma ko sant nañ yàlla ci kàddu ga ñu sañee saa daan wax ne dërëm bu ñu waaye jox ëllëg yow ma xiyaam doo ñu ko poñe ndax dinañ jox dinañ la ko joxal ka ko joxloo te mooy borom bis bi loolu mën nañ ko kitaab mën nañ ko waat lu ñu ci waay mën jox liggéey bi yene bi ñu ci am euh, léegi tey kàddu yi sax day xaw a gudd waaye yéene bi ci am dal mooy mooy mooy mooy lañ ñëpp daal ànd ci liggéey bi te yàlla